am na yoo xamante ne annoncé woon na ko nag ba tey gisaguñu. Mhm. boo jëlee par exemple la zone des Parcelles Assainies mhm. mais boo jëlee rond-point bi jógee jàmmalaay euh, dugg ci biir parcelle. mais euh, tali bi defaraat nañ ko ba lépp. gongo mm. ba keroog nag nga yegg ci sapeur pompier ba. Mm. donc loolu liggéey la boo xamante ne ñu ngi koy def beneen mbir bi mooy soxna Thialla. Mm. ci lu jëm ci euh, pavage bi nga xamante ne Barthélemy parce que il faut le dire. li may wax yëpp du loo xamante ne dama koy ano dama koy dama koy maanaam dama koy wax ci sama coobare bopp mais c'est des choses yoo xamante ne avant mu koy def. Mhm. il a déjà annoncé que damay def lii. Mhm. donc bu ñu toogee ba gis Barthélémy Dias def ko on dit waaw l'acte a été euh, joint à la parole. loolu la ñuy la mën a wax loolu la ñu mën a def ci constat bi nga xam ne moom la ñuy def. Mhm. aujourd'hui yëg dugguma ci analyse je ne fais que constater de faire di nga xam ne ñoom ñoo ñuy déglu ak ñoom ñoo ñuy seetaan boo duggee ci biir Ndakaaru yenn ci ay koñ nga gis pavage yi nga xamante ne ñu ngi koy def mais nga xam ne il y a quelque chose qui est en train d'être fait maintenant pavage yi lan mooy impact positif am ak lan mooy impact négatif am parce que liggéey boo gis dafay am impact positif am impact négatif mais nag problème bi mooy est-ce que jàngat nañu ba impact positif bi nekk loo xamante ne population moom la ñuy gën a jëfandikoo parce que pavage yi ngay wax noonu mais côté boo xamante ne dafay inondé ndox bi bu ñëwee day fees ba dem ci biir kër yi boo ko pavé da ngay yokk nit ñi problème. dafa am loo xamante ne moom moo war a jiitu pavage yooyu muy xoolaat di nga xamante moom mooy canaux yi ngir ñu dem ci li nga xam moom mooy jëm plan d'assainissement bi est-ce que. ça a été fait en amont. ay questions yoo xamante dama koy posé ci li nga xamante moom la wax. koppar bi nga xamante moom la annoncé ci li nga xam moom mooy pavage bi d' accord mais encore une fois faw ñu saytu ko. Mhm. dinañ ko saytu nag loolu beneen mbir la beneen mbir bi fi may jeexalee soxna Diallo. Mhm. Euh, boo demee Liberté 6 fan yéen ñu génn dañoo ne am na benn centre Khalifa Sall nañ ko tuddee. buy def dialyse. Mhm. minimum mën na am cinquante ñoo xamante ne dañu leen fay faj. mu nekk une avancée importante exceptionnelle une avancée boo xamante exceptionnelle boo xamante ne mënuñ ko ñàkk rafetlu li tax ñu koy rafetlu mooy euh, boo fàttalee ko ci ay jamono hangar bu stade Léopold euh, bu euh, aéroport Léopold Sédar Senghor moom la ñu doon utiliser pour ñi nga xam ne ñoom ñooy les hémodialysés hangar boobu ñu doon utiliser sax demoon na ba satisfairatul la demande bi nga xamante ne moom moo fi nekk ci biir boo demee site leeral point net defal na la benn situation nationale ci lu jëm ci li nga xamante moom mooy euh, feebar boobu ñu duppee jëri ak li nga xamante moom mooy coono bi askan wi daj ci daj et j'en appelle j'en de l'occasion pour appeler encore une fois le gouvernement du Sénégal ñu taxaw ci parce que c'est une maladie boo xamante ne mais ça coûte excessivement cher et vu le bi nga xamante ne Sénégal am nañ ko il faut impérativement état bu Sénégal taxaw ci pour ñëwaat ci li nga xam moom mooy réalisation yu Barthélémy Diaz je j'en passerai parce que am na mbir yoo xamante ne mu ngi koy def mais nag euh, xam nga à un moment donné on di que nañ ko féliciter. Barth félicité wu ma ko de. dama koy encourager parce que loolu moo tax ñu jox ko Dakar. d'accord merci Senghor Pathé très rapidement rek pour ñu mën a jeexal par rapport ak euh, démb cette cérémonie pour fësal bilan bu mi mandat bu.